bisimila mbokk yi dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci xibaaru càcc gi ñu nemmeeku ci yenn ci armeel ya féete ca diwaanu Touba ñaar ci ay doomu aadama la ñu jàpp ci mbirum sàcc gu ñu nemmeeku ci lu ëpp ci téeméer ci ay bàmmeel la ci biir armeelu Baqiya bi féete fële ca Touba la ñu fa jël nekk ay décoration ak ay tableau aluminium maanaam lépp lu ñu fa daan teg ngir jëmmal ay màndarga woy dawloo yi tëdd foofu bokk na ci bàmmeel yooyu bosub soxna maam Awa di wayjur bu jigéen bu sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimul axlaaq ñaar lañu jàpp gum ci mbir moomu kenn ci ñoom di wuyoo ci turu Cerno nekk ab tailleur am lu tolloog fanweer ak juróom ci ay at keneen kii gën ko féete ndaw di wuyoo ci turu Moor am lu tollook ñaar fukk ci ay at ñoom ñaar ñu jàpp leen loxo ci poos maanaam fekk leen ñuy jëf-jëf ji ñu teg leen loxo ci bëccëgu ndar kàmb ci noonu ci la leen yoon teg loxo daldi leen tëj ci saa ngir ay monument tableau ak yeneen ni mbir foofa ca biir armeel bu baax yaa ci xayma manqué-manqué yi ñu ne nemmeeku ci yenn ci bàmmeel ya fa woon weesu na ay téeméer te itam bari na ay xabru kilifa yu mag yu ñu fa denc yoo xamante ne bokk nañ ci ñi nga xamante ne dañu leen sàcc bokk na ci xabru kilifa yooyu muy soxna Awa Bousso Faye di soxna ci sëriñ Fallou Mbacké nekk wayjur bu jigéen bu sëriñ Abdou Karim borom Makarimal Axla ak ñeneen ak ñeneen Mame Cheikh cimetière Baqiya boobu di ñëwaat ci mbir mi di xamle ci ay kàddoom ne ca bis boobu dañoo seen ab ndaw mu mel ni kuy dajji lenn ci poto aluminium yi nga xamante ne ay objet de décoration la ca bàmmeel yooyu ca noonu ci lañ ko woo daal di koy fekki ci lañ ko jàpp nag fekk ko mu nekkoon ca mbir ma naroon ko sàcc waaye itam ca nañu ko betteeg nañu ko jàppee moom waa jooju weddiwul benn yoon ne da doon sàcc daanaka sax daf koo dëggal ba tax ca noonu ci lañ ko jàpp daal koy jébbal gendarmerie moom gardien fa ñëwoon ngir ziar si seen way dawlo ya ñu bàyyi woon ca armeer ba bett nañ fa itam keneen muy jëf-jëf ju nu mel ca noonu lañu ko jàpp moom itam dal di koy jébbal gendarmerie yilee kàddu ba gardien bi di maam Cheikh saar nekkul lu dul di firndeel ne mbirum càcc gi ci biir armeel boobu luy faral di am la ngir njàkkum kaaraange ak ñàkkum ay lumière yu nga xamante ne dina leen mën a may ngir ñu gis li xew maanaam ci guddi gi ci biir armeel yu yaatu na 45 hectares lii lañ leen indiloon ci mbir mi xanaa rek di ñaanal ña tëdd ca armeel yooyu yal na leen yàlla yërëm te xare leen aljana ñun ñi fi nekk itam yàlla tas ñu ci seeni barke te saxal ñu ci njub ba keroog ñu leen di fekki jërë ngeen jëf